وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكين يسانتي الله سبحانه وتعالى رجل تنتبه صلى الله عليه وسلم أكي الصحابة أكي nga xam ne mooy النبي عليه الصلاة والسلام yonent الدين الإسلام salaatu ba nga xam ne ci lañ ko tabax mooy yàlla ne na yonent bi ne na saxaaba yi ne nañ ba balaa ñu dajeeg borom bi jalla wa ala mbokk yi gannaaw loolu ñu ngi leen di nuyu ci nuyub islaam di baamtuwaat nuyoo googa di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dafa am benn audio boo xam ne mu ngi tasaaroo ci àddina bi waaye ka ko doon wax lam ci jublu. benn mooy ŋàññ kilifa yi kilifa yooyu ñam ca gën a tànn mooy njiiti réew mi ak ki nga xam ne mooy ka topp ci kawam loola wax yooyu wax yu yàq yooyu wax yu daanu ci saret yooyu lañ bëgg a tànn lenn ci lam wax lu aju ci wàllu diine ak lu aju ci wàllu polotik ak lu aju ci yenn ci la ngay tuddee al manfaatu dhatiya mooy loo xam ne njëriñi self interest comme ni ko anglais di tudde ak yenn ci wax yu ñaaw yi nga xam ne wax na ko ñeenti tomb yi ci lañuy wax fa ñu njëkkee nag ci waxam ji moo di ne ne na président bi xafidahu llah di Adama baro yal na ko yàlla sàmm defal ko jàmm mook nguuram lépp nee na ne dina tabax 60 masjid mooy juróom benn fukki jàkk wala nga juma ñu ne wax jooju su ko waxee te mu mën koo def ana lan moo war tax jullit bi nga xam ne nee na di weddi wax jooju ndem borom islaam ba nga xam ne nee na moom loolu la ndem loolu la lu tax borom di war a euh, bañ loolu loolu muy mbir moo xam ne ab julit bu gëm yàlla du bañ mbaax kon moo tax la wax noonu loolu wax ju yàqu la ñaareel bi ci waxam ne na yàlla ak chrétien yi ñoo tax ñu tedd walla ñu tekki loolu ñëw ne ci biir waxam ne yàlla ak chrétien yi ñoo tax ñu tekki wax ji soo ñëwee ñun ci wàllu lislaam yàlla ak loolu bokkale la benn te moom nee na jullit la moo tax dinañ gis ne kon aqidaam baaxul tawxidam baaxul na dem jàngi na dem jàngi tawxid mu xam li yàlla wax ak li yonent bi wax mu dog a wax mu dog a wax ndaxte soo xamul nga ne dangay wax da ngay yàq eh, yàlla ak biw loolu daganul bokkaale la ñaareel bi mooy lam ca boole nasaraan yi dama bëgg fii képp koo xam ne chrétien nga yang ci biir Gambia nanga nga bàyyi xel bu baax a baax a baax am na ci yenn nit ñoo xam ne seytaane lañ am na ci yenn nit ñoo xam ne poson lañ réew mi ñun fii lañ ko fekk suñuy maamati maam nekkoon fii l'islam moo fi njëkk a dugg balaa chrétien di fi dugg l'islam nekk na fi ay at yu bëree bëree bëri bi fi tubaab yi dugg see ci lañu jël suñuy maam yóbbu leen ñu bàyyi fi lenn ci seen jikko yi ñu bàyyi fi lenn ci seen diine yi nga xam ne moom lañ ñëwee woon waaye ci réew mi fii la fi njëkkee mooy lislaam su boobaa nag chrétien yooyu nga xam ne ñu ngi ci réew mi di dund ak jullit ñi jàmm kenn tooñut kenn kenn lorut kenn bu ñu nangu benn doomi aadama boo xam ne poson la dina jéem a dina jéem a jël ay wax di ko jéem a lasa euh, tabax dugg génn pour jaxase ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñun suñ lislaam bi nga xam ne moom la ñuy dund islaam bi nga xam ne mooy alquran mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa mooy jaar-jaaru saxaaba yi la ñu bi jàngal mooy jullit bi war naa mën a dëkk ku nekk ndéem kuuka jéemu la taxaw digganteem baaraas digganteem ak lislaamam su boobaa ñu war a xam ne waa jooju nga xam ne ne na yàlla ak chrétien yi ñoo tax ñu tekki wax jooju wax ju ñaaw la wax jooju rafetul te képp ku gëm yàlla te nga nekk julit nga gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war nga bàyyi xel ci kàddu boobu nga xam ne kàddu boobu ku xam ku xam li muy wax du ko waxi noonu su fekkee ne chrétien nga chrétien nga bàyyi ko xel nga xam ne nit ñu mel noonu dañ leen di bàyyi xel ndaxte dañoo bugg a yàq ñetteel bi ci waxam ne na yàlla ci xol lay feye lii moo lay wax ne kii xamul diini xamul dara dara xamu ko ndaxte yàlla ñun islam la ñuy waxee fu mu al nii alquran la ñuy waxee sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ñuy waxee li ñu borom bi taba li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal moo dina ci xadis bu wér na yàlla du xool seen melokaan du xool na ngeen bindoo waaye la muy xool mooy seen xol yi ak seen jëf yi te lii wax ju yàgg la wax ju yàgg la joo xam ne wax ju yàqu la di wax na yàlla ci xol yi rek lay xool groupe bi nga xam ne ñooy almurjia ñoom ñooy wax lu mel noonu kon waxam ji di wax ne yàlla xol lay fay ab julit waru koo dégg astuma nag keneen kudu julit jullit ab jullit warut a dégg loolu di tabax ay mbiram di tabax ay paspasam di tabax ay xalaatam ci kàddu boo xam ne laluwul ci xam-xam xam-xam kàddoom boobu génn na xam-xam ndaxte lañu ñu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ak moom lam wax du ben ñeenteeli waxam ja ci biir wax ja ci biir audio bu mu yónnee nee na moom jullit la day wax dëgg subhanallah nee na man jullit laa damay wax dëgg waaw ma ne xanaa wax dëgg wala ñu commencé bokk ci lam wax ne moom jullit la dëgg la ndéem wax na baatu seede yi duñ mën a weddi ne jullit la. dañ ko wedi, wéddi weddi waaye bari na ku ne julit la tu julit bari na ku ne man julit la soo ñëwee xool pas-pasam nga ñëw xool la muy jëf di nga xam islam sori na loola te mën a dëgg lay wax de waaye mu jaaxal ma ban façon dëgg la muy wax ban façon dëgg la muy wax président bi su fekkee ne gis na président bi wax wala mu jëf loo xam du yoon amna ñi ko wara mëna waxal mom président bi na dem ci ñooñu waye mu ne mom julit la day wax deug kon su boba li yaq waxam ji fi modi ne ñun ci l'islam ab julit su buggee lahi bir njit kalifa su mënta dem ci mom direct day xol ñako gëna jégé mo wax ak ñoom ñun loolu moy suñu islam su fekke ne man na dem fofu na fa dem waaye taxaw ci ay media taxaw ci di ko tasaare génn na diine ndaxte diine soo koy wax te bëgg a wax dëgg dafa am yoon juróomeel bi nee na yàlla du fay ab julit du fay ab julit njulit yaa am du fey ab chrétien yi tamit chrétien yaa am waaw ma ne waaw su fekkee ne noonu la kon lu war a tax ngay wax kon amatul njëriñ wax ji amatul njëriñ su fekkee ne yàlla du fay nit ki lam doon julit christian bi tamit lam doon christian yàlla du ko ko fay waaye lu muy fay mooy xol kon jaratul ñuy doon ay ay julit jaratul ñuy doon ay christian kon wax ji amatul sens moo tax sooy wax dangay ngay war a bàyyi xel la ngay wax bu baax baax a baax lan la ndaxte nit ñi dañ lay déglu nit ñi dañ lay seetaan wax ju wax jooju wax ju daanu la joo xam ne. soo ci bëggoon a taxaw di nga fa taxaw lu yàggaa yàggaa yàgg te wax ji amul sens wax ji amul sens ndaxte koo xam ne yàlla du ko fay nekkum ab jullitam yàlla du ko fay nekkum ab christianam kon li ca des kon li war a tax muy kaas moom lan moo war a tax wax jam wax ne day wax dëgg kon ana dëgg ja kon wax jooju amatul sens na seet na wax jooju setantal ko yi tamit bàyyi xel la muy wax bu baax lan la ci biir waxam ji nee na président bi fum mu tabax jàkka war na faa mën a tabax cooj e cooj waaw muy mbir moo xam ne ndeysaan soo ko dégloo sa reetaan moo lay jàpp ndaxte Gambie bii wax na la sànq ne islam moo fi njëkk ñëw balaa chrétien loolu lu leer la képp ku jàng xam taarix réew mi xam nga ne islam moo fi njëkk islam moo fi njëkk balaa tubaab yi di fi ñëw loolu lu yàgg la su boobaa nag ana christian yooyu nga xam ne fuñ tabax jàkka tabax fa juma moo tax christian yi nañ bàyyi seen xel bu baax a baax a baax a baax waaye jullit ñi tamit nañ gën a bàyyi xel seen xel bu baax a baax a baax ndaxte lu tax mooy léegoo-léeg nit ki mën naa wax dara du bàyyi xel la muy wax foog ne la muy wax lu baax la fekk la muy wax yàq la christian yooyu nekkuñ Gambia ño xam ding di leen tabax juma tabax jaka. way nak njortu ne dafa am fenn fu mu wéeru wax joju moy lan moy démocratie moy freedom waaw ne ku am nga sa liberty am nga sa freedom of expression am nga sa freedom of worshipping any religion bobugu. bëgg gis nga lolu wax ju yaq la rew mi rew l'islam la rew mi rew julit la ñoo fi upp même su fekkee ne ñu ne ci constitution bi la fa nekk mooy secular states waaye su ñu delloo sax ci constitution bi bu baax lañ njëkk a bind loolu nekk fa woon waaye dañ ko ca dugalaat loolu amaana su waxtu amee dinañ ci ñëw yi ci yeneen jotaay ndaxte mbir yi na muy demee faw ñu wax ko ndax mu gën a leer la ñuy wax fii mooy tabax juma tabax jàkka fii réew mi réewi jullit lañu ñoo fi gën bari wax jooju mu wax tegul fenn te dégg na sax sànq ne nekkul moom moo ko njëkk a wax am na keneen tamit ku nekk ci benn parti fii benn parti eh, boo xam ne parti bu bees la moom it foofu la bokk mu ngi wax yu mel noonu te man mu jaaxal ma lool ab julit naka la muy mën a waxee wax jooju ngir rek plus nit ñi ngir rek sàkk lu neex nit ñi nañu ragal yàlla wallahi place yooyu ngeen di wut soo leen ci ragalul yàlla yàlla dina la ko mbugalee àddina mu mbugalee la ko àllaaxira ndaxte soo buggee jël lu neex nit ñi nga lor nit ñi the same time di nga ko layoog yàlla lan mooy loolu yow nga ne ab julit nga waruloo wax benn wax waruloo wax benn kàddu di ko génnee sa gémmiñ gi lu dul da xool lan la ci yàlla wax lu dul da ngay xool lan la ci yonent bi wax ndéem julit nga waaye ab julit di wax ne waaw fuñ tabaxal ñii nañ tabaxal ñii wax jooju ab julit du ko wax te képp ku ko wax la ngay woote moo di ne sama diine ak beneen diine yëpp ñoo yem te loolu amut loolu amu fi tey amu fi ëllëg islam moo fi nekk nit ñi nangu nañ ko ñun ñuy dundul lislaam ci réew mi moo gën a bari bañ nañ ko wéer ko ci ay démocratie ak li ñu xamut nit ñi ñi nekk ci réew mi fii ñoo fi gën a bari kon su boobaa njiiti réew mi su waxee loolu yeyoo na ko wax na lam lam bëgg mu des nag ndax dina ko def wala du ko def loolu leneen mbir la waaye yal na ko yàlla defal tawfiq ala kulli xaal euh, loolu lu aju ci wàllu kàddu yem wax ci wàllu diini la fu may tëjee buntu boobu moo di ne euh, Supreme Islamic Council boole ko puura boole kook sécurité bi nañ ñu dimbale ngir yàlla ñu waxal ñu suñu gambien si nga xam ne ñoo nekk ci biir ak ñi nekk ci dayaspoora bi wax leen ne réew mi réew yi jullit lañu la cay dugg nañ meeg soo bu mu yàq suñu diini na meeg bu mu yàq suñu jikk xarala yu bees yi nag la cay dugg ci ay waxu caaxaan la cey dugg ci ay waxu fen la la cay dugg ci ci wàll yoo xam ne day tax nit ñi yab seen njiit ñi bari na lool te yab yabeel baaxul rawatina am njiit kenn du ko yab ndaxte yàlla tabaraka wa taala mooy teg njiit yooyale kon su boobaa nañ ñu jàppale sàmmal ñu jàmmi réew mi kaaraange réew mi loolu ñun yëpp la war waaye lépp loo xam ne dina indi ñiiwoo indi ŋaayoo buntu yii ma wax boole ko Christian Council bi ñun ñëpp nañu booloo xam ne ñun ñoo fi nekk dimb Christian bi waruta baare lenn ci loo xam ne jullit bank jullit bi am na àq pour mu def ko waaye noonu la itamit jullit bi amul benn àq mu baare loo xam ne chrétien bi mu ngi fi woon démb di ko def te tooñut la génnul diine yàqut luwaa yàqut eh, àqu keneen kon loola ñun ñëpp dañoo war a bàyyi xel ci kàddu yooyu ñun ñëpp dañoo war a sàmm karange réew mi ñun ñëpp dañoo war a sàmm diine ji ba nga xam ne képp ku ciy wax yi tamit nang ci wax xam-xam soo ko mënta wax nga dal di noppi bàyyee ko ña nga xam ne ñoo ko mën a wax su ñu ñëwee ci wàllu politique laal na jamono bi nga xam ne dugg nañ ci ñu ngi ci euh, jamono bi nga xam ne mbir yi mu ngi metti mooy waxtu bi nga xam ne njiiti réew ma fi newoon nee na dina wàcc du wàcc moom borom wax ji nee na ña ñu ñëw dimbale ci jamono jooju ñooy chrétien mooy wax ju daanu ci sareet yi tamit ndaxte njiit yi njiit yi lañ fi def rek doy na ña ñu jiite ci wàllu diine lañ fi def rek doy na kii foog naa nekkutoon di déglu rajo yi ci biir réew mi waaye wax jiñ fi wax xutba yi ci bari yi ci xarale yu bees yi liñ fi def rek kenn xamut nu mu toll loolu kaset yooyu ba tey ñu ngi ko récolte mu fi ban chrétien moo jógee ci biti réew mi ñëw ne def ñuy dimbale anam anama loolu amu fi waaye doomi réew mi ci seen bopp ñoo gannaaw tawfiq yàlla gannaaw ndimbalu yàlla ñoom ñoo jóg ñaan yàlla ñu dox dox seen sol seen dàll moo xam sobresami kansul la ak ña nekk ci seen ron di woote jëme ci yàlla ak christian kansul bi ñii ñoo toog ñii ñoo jóg sol seen dàll ñu wax ak ñaari boor yi yëpp ba fitna bi yàlla jeexal ñu ko kon su lan la muy wax ne gaa yi ñoo ñëw dimbale ñu ci ban boor lañ ñu dimbale na bàyyi xel ci la muy wax wax jooju yi tamit teguwul fen ne na ñi nga xam ne ñooy jullit ñoom ñoom duñu dimbale nit subhanallah man de foogu ma woon ne ab jullit dina génne kàddu bii di wax ne jullit du dimbale du duñu dimbale ndaxte ñun lañ jàng day te xam ko te jullit bu nekk gëm ko moo di ne julit julitay mbokkam moo di ne julit day jàppale moroomi julitam moo di ne julit day sàmm àqu mbokki julitam kum manti doon kum manti doon ci kaw suuf fu manti doon ci biir réew mi fii jullit ñi dañuy jàppalante jullit ñi dañuy dimbalante waaye nag ñu mel ni moom ki yi audio boobu ñu mel ni ñoom ñoo yàq diine ji te ñu ne ay jullit lañ ñu mel ni ñoom ñooy yàq jikko yi ñu mel ni ñoom ñoo bëgg a yàq réew mi su boobaa nag ñoom nañu ragal yàlla suñ amee seen personal interest yu ñuy dox seen personal gains si ñuy xool ci biir loolu nañ ko xool moom nag wax na ci biir waxam ne jullit ñi déglul wax ju yàqu ji tamit nee na jullit ñi dañuy tukki dem ci réewi nasaraan yi du ñu dem ci réewi jullit ñi xam nga loolu euh, njortoon naa ne day wax jooju su xamoon dëgg-dëgg àddina bi ni muy doxee ak waa réew mii nu ñu buggee jàmm waa réew mii nu ñu buggee teral seen bopp waa réew mi nu ñu buggee tedd du ko doon waxee noonu ndaxte foo dem ci àddina bi gambien si ñu fa dëgg la gambien si ñu ngi jógee Gambia di dem ci réew yi ci réewi tubaab yi di dem ci réew yi yoo xam ne réewi nasaraan la loolu kenn du ko weddi ndaxte mu ngi am waaye ndax noonu la ko diine waxee ñoo ñuy dem ndax diine fam leen teg ne fa lañ war a jaar balaa ñuy dem naka lañ war a mel ak lan mooy charte yi ak lan mooy eh, yi mbir yi ñu war a taxawee balaa ñuy dem ndax loolu ñoo ñu xam nañ ko loolu beneen mbir la waaye nag na xam ne islaam ak julit ñi dimbale bi ñuy def fii moom su ko xamul na noppi bul wax lu mu xamul te dañ koy laaxe biir maa daama julit la bum nangoo wax loo xam ne xamu ko rawatina ci wàllu diine bum ci wax loo xam ne xamu ko te kaddu bii mu wax xamu ko te kaddu la boo xam ne wérut tey wérut ëllëg jullit ñi ñiy jóg di dem ci réewi nasaraan yi di fa xool seen intérêt te moom kenn la ci ñooñu di fa xool ne na nañu teddee moom kenn la ci ñooñu ne na pour suñu teddee ñu ñib siwaat ci réew mi fii mën a yëkkati seen bagg loolu wax na ko ci biir audio bi puuka réew ab jullit bu gëm yàlla du wax loolu ab jullit bu gëm yàlla du gëm loolu ne ma dem ut alal ma ñëw ma tedd ma puukariwu ci kaw nit ñi yëkkati ko sa yëkkati sama bopp loolu wax ju yàqu la ndaxte islaam lam ñu digal mooy nañu suufil suñ bopp man tawadaa lillah rafaahu llah yonent bi ne alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne da nga wàccee sa bopp da nga sa bopp yàlla dina la yëkkati te bokk na ci laaxe biir yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyee woon na ko fi jullit ñi mooy bu ñu rëy rëy ndaxte rëy yàlla ko moom su fekkee ne nag da ngay dem uti alal ngir nga ñëw rëyee ko ngir nga ñëw tabaxee ko comme nim ko waxe ci biir wax ji ñew tabax ay kër tabax ab kër sax garawul waye dang koy def mu yem lolu ko def ngir ngir reey reelu ndax te yag yag ndem julit nga ding ko fi bayyi ndem do julit tamit ding ko fi bayyi kon su boba pukerewu ak reey reelu kum tax nga dem uti alal xamal ne alal joju ding ko fi bayyi te so deme nga de yalla dina la laaj alal joja loko jifé ak nang ko amé Eh, wax na ne tubaab yi ci biir waxam wax na ne tubaab yi ñoo ñuy dimbale ñoom ñoo ñuy dimbale waaw ma ne xanaa kon de tubaab yi amul ay julit kon ah tubaab yi am ñoo xam ne seen biir julit ña nga fa ñooñu la ñuy def fii ci réew mi rek kenn xamut tamit nam tool te ay tubaab lañ ñoo xam ne ay julit lañ ñun lañ fii dimbale ci ay nit kenn amul xamut nam tool waaye moom lan la fi def moom moom mii wax loolu. tubaab yi ñi ci nekk julit lañuy dimbale ci biir réew mi ma ne fii ci Gambie bari na lool moom moo ko xamoon waaye moom mi wax loolu lan la fi def nañu waxe benn boor boo xam ne def na ko fi nañu waxe benn teen bu gasal ay nit ngir ñu njëriñu ci nañu waxe benn saaku maalo bi mu fi jëndal ay ay koo xam ne yatiim la nañu ko wax wala benn ndimbal boo xam ne def na ko ci waa réew mi defal na ko waar réew mi fii nañu ko wax balaa ngay wax bu jàmbur kay nga wax sa bopp lii moo tax Gambie bi mbir yi jafe ndaxte nit ñi dañu waroon a seet ñoom lañu war a defal seen réew lañ war a defal seen réew ñu xool ñu def ko waaye dañuy xaar seen réew lam leen di defal muy mbir moo xam ne tey moo tax yu bëree bëree bëri di deltu gannaaw moom nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoo tax mbir yi di deltu gannaaw ndaxte ku am xel di xalaatee noonu. kooku xalaatam day deltu gannaaw te i tamit du mën a yóbbu kenn ca kanam waaye na xool lam mën a defal diineem na xool lam mën a defal réewam ndax réewam mën a dem ci kanam ci biir waxam ji mu ne nee na tubaab yi ñoo leen di dimbali foofu fa nekk suñ demee ba soxla gis nga tubaab yooyu dañoo xam ne yow da nga amuloo dañoo xam ne yow danga nga aajowoo dañoo xam ne yow danga nga moo tax te ñoom xam nañ human right bi ñuy jéem a woote ci beneen boor dañ koy dañ koy sàmm moo tax suñ gisee ku mel ni yow nga ajowoo ñu lay dimbali ñu lay dimbali su boobaa loolu waroo cee tabaxu waroo tabax say wax di ko jëmee ci réew mi di ko jëmee ci njiit bi loolu du yoon eh, wax nañu tamit wax ju wax ju ñaaw foofu la ñuy jeexale ndax mbokk mu ñëw wax na waxtu bi jeex na wax na wax ju ñaaw ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiite di suñuy kilifa te suñu waxee ay kilifa nag dañ koy commencé ci biir kër gi ñëw ba ci alkaali bi ñëw ba ci imam bi ñëw ba ci gouverneur bi ñëw ba ci ministre bi ñëw ba ci njiiti réew mi ñëw ba ci ki topp ñii yëpp ay kilifa lañ wax na nag ay wax yu ñaaw yoo xam ne ndéem jullit la na tuub dellu ci yàlla. xam ne ab njiit ab kilifa kenn du ko ŋàññ kenn du ko saaga kenn du ko ŋàññ kenn du ko saaga wax yooyu nag man duma ko fi wax ndaxte rafetut waxtu wax yooyu yamu wax ci audio bi rafetut ñu koy wax waaye na xam ne njiit dañ koy respecté njiit dañ koy jox àqam même su la joxut yow sa àq waaye yow jox ko àqam ba mat bul ko saaga ka ka nga xam ne yi tamit moom mooy topp ca kawam Moy, moy, moy, moy, moy ki top ci ko njiit li kooku tamit wax na ji mom wax ju ñaaw jo xamne ab julit ku gom yalla waru ko def ndaxte loolu refetul, ndaxte lolu lu ñaaw la te ab julit ta mina làmmiñam ci wax ju ñaaw ab julit dafa wara sam wante euh dinem wara sam wante jikko ju bax di wax lu bax di dox lu bax di doxal lu euh dañ koy tak fi be benen yon di ñaan borom bi subhanahu wa taala yalla defal ñu jamm yàlla defal ñu tawfiq waaye nag la laaxe biir bi nga xam ne moom lañuy tëje moo di ne diine ji nga xam ne mooy lislaam bul ci nangoo wax loo xamul te ki nga xam ne mooy yónnee audio bi dafa wax ci lislaam loo xam ne xamu ko jëmee ko itamit ci njiiti réew mi waaye lañ bëgg a wax fii moo di ab julit na ragal yàlla ab julit na am orma ab julit na jox nit seen àq su ko defee jàmm ji ñoom ñi nekk ca biti nañ ñu saxalal suñ jàmm ci ci biir waaye ngay def ay audio di def ay mbir di ko yónnee ci biir ngi yàq diggante bi nga xam ne moo fi nekk ñi fi nekk yi tamit nekk ci biir nañ ko sàmm ña ñu jiite ci wàllu réew nañ ñu sàmmal jàmm ji nañ ñu sàmmal lii nga xam ne mooy àq bi nañ ñu sàmmal lii nga xam ne mooy eh, sécurité bi nañ ñu sàmmal lépp loo xam ne mbaaxi réew mi la mbaaxi diina ji la nañu ko sàmmal waaye lépp loo xam ne tamit yàq la ci ci diine ji yàq la ci ay jikko nañ fexe nañ fexe ñu soril ñu loola ndaxte kat ñoom ñëpp dañ war a xam ne place yooyu ñu toog suñ ci ragalul yàlla yàlla dina leen ko laaj te àddina fii la muy commencé àddina fii ngay commencé di gis ngay xam ne ndëkk dëkk li la yàlla sàmmloo woon da war a bàyyi xel koo mënti doon ci kaw suuf nañ sàmm àq bi leen yàlla sàmmloo ndax suñu dee génn àddina ñu mën a fekk lu baax yan yàlla defal lu baax yan yàlla sàmm ci mbaax su ko defee mbokk moomu yi tamit yónnee audio bi na ragal yàlla bum nangoo wax ci diine ji lum xamut bum nangoo wax kilifa yi loo xam ne yàlla tabaaraka wa taala su demee ba dajeeg moom ëllëg dina tax. Eh, mu ñagas te ab julit dafa war a moytu loolu di ñaan borom bi jalla wa ala yàlla defal ñu tawfiqi àddina ak tawfiqi alaxira ñu ngi yemlu foofu jazakumullahu xeyran di ñaanal mbokk mi tamit eh, yàlla yokk ko defal ko tawfiq barkeelal ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu